kàddu yoo xam danga koy jagleel waaw teewaay bi day mooy teewaayu mbégte teewaayu sàmm lislaam roye ko ca mag ñu baax ña ñu newoon ci réew mi te lislaam ñu taxawoon ko ba ma sëkk tàmbale Cheikh Ahmed Bamba ak euh, ñi nga ngi koon turux yëpp muy maam Alaaji Malick Sidi Ibrahima Niass maam Limaamu Laay sëñ Jaasaan ak ñooñ ñëpp ñu baax ña fi newoon jëmbatoon fi loo xam ne garabu lislaam garab googu nag daa mat di roose di roose moo di suñu borom dafa wax ne wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu na ngeen jàpp ci buumu suñu borom gi te bu leen tàggale ko alhamdulilah euh, bis bu mel nii nag euh, dundalaat na loolu jàpp nañ kenn ku ne li xew ci senegal mooy jàpp ci buum gi dagg yóbbu sa wàll tey nag danoo bokkul jàpp ci buum gi kenn ku ne wala tafaraqu jooju ñuy fàtte def naa ne fàtte ko tey ndax sëñ Bass mi def uh, événement bi Sëriñ Baara sunu maam di tedd ja uh, woo na ñëpp fàttali na la Sëriñ Touba uh, doon doon saytu mu xam ne ak booloo doomu aadama yi ak defar doomu aadama moo ko yëkkati woon defar googee nag tey lu mel nii rek ci lañ mën a jaar parce que ci la jàmm xaj ci la lépp xaj waaw mooy kenn ku ne na nga jàppe sa bopp nu ko raw nga jàppe ko sa morom ci aw yu ci bëggal ko jàmm yéene ko jàmm te nangoo liggéey bañ a tay nangoo liggéey ak ak yàlla nangoo liggéey ak jaamu yàlla maa ngi tayal ki parce que Sénégal àgg na ci foo xam ne buñ delluwul ginnaaw maara day taal yi euh, foofu danañ dem ba sës ci miir bi te boobaa yàlla na fa yàlla na yàlla musal ci loolu mooy béy wéy mbuus te béy buñ ci moytuwul béy wéy mbuus ndax kenn ku ne dañu lu ñu bëgg a xewal mooy baaxal lu bon bonal lu baax te loolu yàlla defu ko te du am mukk ci àddina mooy li mi ça tend à être endémique mooy ça prend des proportions inquiétantes euh, ni koy defee dafa ñaaw te lawal ko boo de boo nekkee bëgg lu baax lay dañ lay bonal boo boo bu nekkee nit ku nekk sa fan ba dañ lay bëgg a baaxal xewal loolu te loolu jëmul kër kon nañ dellu si fi maam yi defoon muy képp koo xam ne lislaam nga wala nga fonk diine diine dafa baax ci réew ñu ñun ñi xam ne nag jullit lañu aussi nekk benn bàyyi nga ñante bañ a defal bañ a defal ndax lislaam li ko riisal mooy fu mu jaar fu ne rek lu fa baax lu ne da koo da koo jël baaxalaat ko baaxal ko jël ko jël ko en compte mais bu fekkente ne nag ñun ñëpp nooy tuddee Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam boobu wax na yonent bi moo ngi ñool ndax moom ci jikko lañ ko tag te l'islam euh, siraatul mustaqim aw aw aw aw yoon la bu war a jaar kon yow man ngaa jóge fii jaari Kaolack jëm Touba wala nga jëm Linguère kay jaare fii dem ba Saint-Louis bu ko neexee dem li ngeen kee jaare fee dem ba fu ko neex yoon yi mën naa kii waaye nag nañ xam ne ñoo bokk fu ñu jëm ci suñu borom tabaraka wa taala bu ko defee danañ mën a li ñuy wax ñeneen ñi danañ ko mën a gëm waaye bu fekkente ne ci suñu biir ànduñu mais looy waxe nooy waxe ne ñeneen ñi noo koy laye